gars yi ñu leen nuyu den jaar yéen ci Sport bi dama leen abonné ci compte YouTube bi Romo Sport la RMO espace sport comme logo bi nekk fii même ni ko bindee fi lañ ko bindee euh, YouTube ba su ngeen demee ne am continuité vidéo nag Sadio Mané ak Thomas Tuchel Thomas Tuchel bi nga xam ne tey apprécié na xam na ne Sadio Mané mooy meilleur joueur te xam na ne Sadio Mané ëllëg euh, ci max yi des war na cee mën a génn ak forme bi Sadio Mané wan malgré ñàkk na ne moom Thomas Tuchel am na effectif boo xam ne war na mën a capable jël war na mën a capable préparation déwén bi pour ñu ki lool dañu ñi kan ci poids ngeen awate parce que qualification yi pour ngeen tudu otaral fi ci no port sama gars tay tey tuma taxul gis ngeen ni teel duwee saa maanaam nee ba ba jaaxle xam max fi metti na lim départ lu kenn amul kele ak capacité décante situation bi saya maane moo ñëw décante situation bi lool nag day jàngale saa maane bu départoon bi bi day teel kon bayaan na dañu am dañu am pause bi pour mëna fayu ndax ci bi bi wu teewoon duggal ci dañuy décrocher wu ndax premier bi bàyyi leen xet ba premier bi tay city maanaam bàyyi la ñoom occasion yu bëri mais si dañuy taxaw ci digg bi rek xam ne kenn amul capacité bu durul leen benn booy bi dañu fàtt bàyyi yeneen booy yu dóor ci kaw te bu fa Sadio nekkoon commande dox Sadio Mané dox du mën a fàtte ñaari ñëpp fu ñu fàtte Sadio Mané commande dañu mën dañu a traversé bal bi Sadio Mané Sadio Mané mën a laal kaay mu dugg te kon bii day yomb mais nag sport noonu toujours les perte doo xam mais te boko la dum lu reggé gën a regretté day laaj saa maanaam bi ma ñàkk départ lo franchement man togol di loolu met na ma lool roi chan nag te gis tamit affaire rafet roi chan seen saa maanaam mi gën ñu nuyonte tot leen roi chan xol bi seedul ndax sóor du bëgg jógee gëné mais nak roi chan yaa ngi ci bu reuy yaa ngi ci bu reuy reuy tay te saa li ma dañu mii ni ëllëg bu ko dugal ci bundesliga war liga wala lu mel wala lu gëna pire yow roi chan da ngay am chance pour ñak sa place ndax nak Sadio du sa morom jox ko respect bi nga jox man cee jarignu mais ñaka jox respect Sénégal yëpp contre la te ordre senegalais nga te lolu baaxul ci yow kon nak gaay fa France tay tey Sadio Mané monage nako ko yu re re re yo xamé sene bi na mom xam na ne kii néexatul a géej effectif bi da koy tek di gagna wala ñaka ñàkkaat ñu lay gagna ñu lay ki tigé diyoon mu dem ci benen club def lam nan def ndax Sadio nak def lam nan def moy di jël penalty Thomas Tuchel def loolu la mu def tekki ci banc bi City def lañ daan def rek mooy dóor la baa niin kon nag match baa ngi noonu changement yi sigil nañu yàlla nañu yàgg ndax franchement dañoo am ci moom baax a baax ndax football Sénégal dafa nekk ci loxo Sadio ba seen kanam kanam kanam kon gars yi la moo ne ko vidéo wéyandi abonné di commenter di partager di liker nga ñuy xaar fi suñu seen Rmo Sport ak yeneen vidéo ak yeneen jàngat duñu bàyyi dara merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax baax a baax